maa nga jëm Parcelles Assainies unité 21 en face terrain basket bi dem seeti Ahmadou Bassirou Ndiaye Ngéraan borom bi may ko lool ci xam-xam xam-xam boobu nag mu ci dimbali nit ñi mu daal di leen defaral ñetti ubbeeku yoo xam ni danga koy sangoo maanaam mu di ay saabu yoo xam ni am na ñetti niveau boo xam ni saabu bu njëkk bi day def ci yow ubbeeku ba noppi def ci yow protection ndax yéen ñëpp soxla ngeen protection ñaareel bi dafa lay ubbi ba noppi indil la ñetteelu saabu bi ubbeeku bu leer nañ ba noppi nag àndandoog li nga xam ni liy dugg sa loxo day des ci sa loxo di toog ci sa loxo kon Ahmadou Bassirou Ndiaye li la yàlla may jërëjëf ci ni nga ko bokkeeg jaam yi rawatina nag ñi nga xam ni dañoo am problème mu njaboot nga xam ni nag ay góor lañu am nañu kattan waaye mënuñu am doom mu dimbali leen ndax léeg góor ak jigéen dinañu nekk ci sëy duñu am doom ñu ne rek ku jigéen ki la fekk yow ku góor këyit daa war a faju kon ñëw leen seet si Ahmadou Bassirou mu jaarale leen ci produit boobu muy wax wax Nasirullah Nasirullah nag dina la traité bu baax yow ku góor ki nga xam ni koo jege rek di nga ca mën a am njaboot Ahmadou Bassirou Ndiaye Ngirane Parcelles Assainies unité 21 janoo ak terrain basket bi téléphone 76 589 93 67 wala 78 469 24 30. Sabara Hello ladies and gentlemen bonjour à tout le monde bonjour les chers internautes yi nga xamante ni dañuy seetaan partout dans le monde di leen wax bienvenue sur votre émission émission bi nga xamante ni ni ko jagleel jeunes yi nga xamante ni ñoo nekk ci mim réew di dippee ko tekki fi muy amee fii ci Salam Vision télé bi nga xamante ni jàmm ju ànd ak gis-gis la woote présenté par DJ bi xale bi yaayam yaakaar l'homme qui n'a pas peur d'avoir des cœurs xale bi taxaw naan I am the future of the world people je suis l'avenir de tout un peuple quand j'ai l'air que je fais partie l'un de mes meilleurs génération te loolu xam naa ni c'est ça que vous sentez et ressentez là où vous êtes te loolu c'est pas donné à n'importe qui kon jaar naa leen bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñu ngi Pikine ñu ngi fii Pikine Rue 10 donc ak benn tonton grand boo xamante ni nii fii la juddoo fii la yoro mais dafa dafa dem ba benn moment mu génn fii muy tonton Yamar dans un instant dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoom ñi seetaan fii ci Vision comme ça ñu woyal waxtaan bi mais tey di ngeen gis doy waar di ngeen gis lu mosul am fenn parce que émission bi tekki fi la te ku ne xam na ni pour nga tekki foog nga am passage foog nga am jaar-jaar foog nga dund lu taat foog nga dund lu metti kon tey émission bi dina ànd ak émission di ngeen fi gis jooy di ngeen gis lu mais ñi lay demee saa su ak lépp lu fi mën a am da xam ne ñun jeunesse bi moo ñu ñor on va on di faire face ak seen i difficulté ak seen problème parce que loolu mooy moo lay jox motivation bi nga xam bi waral nga mën a tekki ëllëg loolu moo lay jox résultat kon jox nañ leen bu baax a baax leen jox seen wàccuwaay di leen wax ñi lay demee saa su ne kon restez scotché tonton Yamax nuyu naa la. waaw naa leen fay naa leen dem de di leen tamit bon di leen masawu coono gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waaju ñu ngi leen di dalal waaw. waaw comme comme tu l'as dit ñun tamit ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay parce que tamit liy yombul dalal nga ñu comme il le faut kon nee nañu gan nga koy dalal dalal nañu comme comme comme ni mu waree ñu ñëw fekk fi ñaari soxnaam yu baax waaw soxnaam yoo xamante ni nii fi lañ leen fekk mais ils nous ont bien accueillis te noonu jàpp naa ni loolu la ñëpp di ñaan fépp foo dem rek ñu accueillir la fa ak jàmm ak dal te loolu lañ fi kon ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ñi lay demee toog leen ñu dundandoo ensemble lii xew ci biir plateau bi tonton Yamax ginnaaw bi nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñoom ñu ci daan on voulait savoir qui est Yamax ak Yamax fan la juddoo fan la yaroo loolu lañ bëggoon xam ko waaw bon gannaaw buñ ñu sante yàlla bon yamar moom benn ndaw la rek mu juddoo pikin màggee fi yaroo fi ba yàlla def jàmm mu war a def immigration génn def yeneen pays def leneen. gis leneen nag bon am lu mu bëgg a ci réewam parce que dara munta dem sans nga ñëw ci sa wéeruwaay wéeruwaay mooy lan nit ki loo mën a am te amoo ko sa réew daanaka amul njëriñ bon dañuy sant yàlla nag parce que du question njàmbaarte wala dara yàlla mooy dogal yàlla jox ñu vision boo xam ni xëy na ñun sunu réew lañ gis moo tax ñu ñëwaat quoi waaw mais on voulait savoir pourquoi tu as fait la choix à l'international ak bi nga demee lan nga fa dund loo xamante ni nii ay difficulté la parce que ku ne xam ne immigré neexul quoi. Mhm. waaw immigré bon euh, neex na neexul parce que euh, dara gënte neex nga jege say waajur jege say mbokk bon jege say dëkkuwaay jege sa lépp. boo demee rek peut-être dafa am leen loolu lu la yëkkati li la yëkkati mooy lan ñëpp xam nañ ko jeune Sénégal ñëpp bëgg a tekki waaw loolu moo leen yëkkati mais de toute façon boo demee tamit na nga am fulla ju toll nii xam ni yow dafa am lu la yëkkati da nga dellu si waat dafa am solo quoi day solo. mais mais lan moo taxoon nga def choix bi pourquoi nga visé woon à l'international lan moo maanaam lan moo nekkoon mébét bi lan nga dund fii Sénégal ba war a tax nga ne damay dem damay génn quoi. waaw ah li ñu dund Sénégal comme jeunesse yëpp ni ñu ko dundee la rek. bon Sénégal nekk na dëkk boo xam ni bon euh, léeg-léeg loxo di jot ginnaaw quoi bon nga am yaakaar nekk xale bon gis say moroom di dem di ñëw di def leneen leneen yow it sa xel nekk ci loolu nga ni bon naa dem man tamit pour mën a def loolu sama gaa yi def xam nga am vision boobu boo demee nag bon li ci des yow yaa koy mottali waaw yaa parce que nit ku nekk tamit boo demee yaa ngi sa xel voilà. ci bon man nag ban bi may immigré ji j'avais dix-neuf ans. ok bon yombul tamit. parce que am na ñoo xam ne peut-être bëgg nañ ko mais mënuñu ko am. man bi may génn maa amul dix-neuf ans bi ma demee tamit bon metti woon na quoi. parce que maa ngi nekkoon Italie. Euh, tout récemment déggoo làkk bi bon jàng yóbbuwu la fa et nga ngay immigré bon situation yi nekk xale dana xaw a tar mais biñ ñu yàlla defee sutura am na nu mu demee. bon ba yàlla def jàmm ba 2009 laa njëkk a ñibbisi waaw bi ma ñëwee bon def naa fa 10 ans nag bi ma ñëwee def naa 10 ans yoo xam ni ma aw ma këyit quoi nan ko doon waaw dix ans bi nu mu demee. waaw dix bu tar nag. parce que xam nga xale. toll ci ndaw war a dox sa dox. bon ñu yóbbu foo xam ne te xamoo kenn. waaw man sama nijaay laa fa nekkaloon mais moom bu xëyee day liggéey bon ma nekk fa di débrouiller ak ñàkk papier beeg yëpp mais euh, yàlla sutura yàlla quoi ak ndimbal suñu borom metti na waaye nag jar na ko quoi jar na ko quoi. léegi tu as fait dix ans à mhm. ma wax qu'est-ce qui a poussé qu'est-ce qui t'a poussé à ce que nga ne damay delluwaat sama réew lan moo la poussé ci bon li ma si poussé bëri na quoi parce que euh, benn instant euh, nekk si réewum jàmbur neexul. parce que ñu bëri bon dañ dul comprendre mais am na loo xam ni euh, ci sa réew nga ko mën a defee waaw parce que tamit di siggi di xool fu la neex ci sa réew rek nga ko mën a amee bon nekk ci réewum jàmm ak loo fa mën a am tamit bon fayul quoi parce que day metti day metti parce que dañ la ciy xool dañ la xool xool bët boo xam ne xam nga du la neex quoi loolu moo ma gën a poussé ma dellu si sama réew quoi pour voilà léegi bi nga nee cëpp Sénégal tu as l'aéroport de Dakar. mu leer ne instant yi maa ngi Sénégal. moo wax en tant que jeune boo xam ne dafa demoon wuti ji lan la njëkk a sentir maanaam lan la njëkk a sentir quoi envers mhm. ne dafa demoon wuti ji am lu mu mais peut-être ay difficulté moo tax mu ñëwaat. Mhm. bon li ma motivé bu ma ñëwaat. bon bi ma ñëwee. li nga njëkk a sentir quoi bi nga ne xamee ne yaa ngi Sénégal yaa ngi ci aéroport bi. waaw bon bi may ñëw man déjà suuf yoonu suuf laa jaar. may dem tamit yoonu suuf laa jaar. mais bi ma ñëwee Sénégal euh, je me sens à parce que am na loo xam ni euh, comme li ma la wax sànq rek mënoo ko dund ci réewum jàmm mais bi ma agsee am na euh, courage mat ba ma xalaat ni mën naa réussir Sénégal quoi waaw parce que am na am na lu fi am quoi waaw léegi bi nga nee ceeb Sénégal nga am ay ay nga am jaar-jaar à l'international bi nga ñëwee mbokk yi nan nga doon dundee ak ñoom parce que boo jógee Sénégal ku nekk xam na suñuy réalité ñu si fii nga jógee à l'international ils vont jëkk àndaale na mhm. kon nan nga doon dundee face ak ñoom mhm. waaw ni ngay dundee ak Sénégal yi xam nga Sénégal yi moom na ma yàlla baal mais dañu bëgg xaalis loolu moom am na quoi bon soit bon au départ dina neex mais bu affaire yi demee ba xaw a clignoté rek sa waaye dina xaw a métti ci yow parce que tout le temps dañ naan la non yow amoo droit pour toog fii parce que comme génn nga ba pare mais lan nga lan nga fi war a def mais man tout le temps damay gëm ni c'est pas ça àdduna du noonu yàlla bindul nit rek pour muy ut alal ba ba kenn xamul quoi am na yeneen procédure yoo xam war na am war nga am njaboot war nga war nga dund réaliser kër war nga réaliser war nga war nga dudd diine war nga xam nga yeneen ak yeneen yu dul jeex dina metti nag quoi parce que ñoom duñ gëm lool. surtout nag sa njaboot bon tàmmoon di la gis ngay dem ak ñëw benn instant nga ñëw toog seen wet ñoom ñu xam li nga bëgg yow bon. à l'âge de 19 nga dem. Mhm. bi ngay dem bàyyi nga fi soxna bàyyi nga fi bant ou pas. non man bi may dem bàyyiwuma fi dara sama yaay rek laa fi bàyyiwoon ak sama papa. mais heureusement bi ma ñëwaatee fekkaat naa leen fi sant yàlla quoi mais bi ma commencé demaat ba quelque ba 2015 ci la sama góor euh, sama góor gi wàcc liggéey bo après nag ci la décidé na naa toog parce que tamit. nga toog njaboot waaw parce que di dem di dem di dem bon am naa ay doom baay quoi mais sama côté yaay man may taawam bu góor ndax bu góor léegi nag ci laa toogee liggéey sama liggéey. bi nga ba ne man dootuma demati ba jël diffision boobu noonu lan nga njëkk a def. bon man nag euh, gannaaw yàlla def naa fi du nekk def naa fi genre métier parce que man xam dama nekk nit boo xam ne xaw ma toog ma toog xaw ma bàyyee ko ak lu mu metti metti damay gëm ni war nga si mën a génn quoi parce que yow joxoo sa bopp yàlla moo lay jox alors def naa fi commerce jaay fi ay affaire prêt à porter jaay fi affaire dàll saag pochette yooyu yëpp bon jógee ci loolu après amoon ay taxi yuy daw bon xam nga Sénégal nu muy doxee léeg-léeg affaire dañ koy bëgg mais du du demee noonu bon ñu yàqal la nga jëlaat sa taxi def naa fi transport taxi en même temps di dawal def naa ko cinq ans nekk chauffeur di dawal nekk sam bopp. bon bi ma jugee ci loolu après def volaille def euh, ay ginaar am euh, nu mu def ginaar di jaay di jaay ak yooyu. voilà commerce bi waaw. léegi léegi kon kon jibi avec tout ce temps. Mhm. fi nga jaar jaay def def def chauffeur tu vois yoroon sa taxi. Mhm. qu'est-ce qui t'a poussé à ce nga ne loolu yëpp dama koy bàyyi damay dugg ci wàllum jaay quoi jaay leen. Mhm. restaurant bi nan la nan la la waaw bon resto bi euh, ni ma dikkee. Euh, c'est juste parce que euh, man sama première femme mu ngi Italie. mu ngi Italie voilà mu ngi Italie ngi foofu ak ay parents am yëpp. sama deuxième waaw sama deuxième nag. bi nga demee am takk nga takk naa fa. jabar sénégalaise quoi no no ñu ngi gisante. ñu ngi gisante ba tout récemment day ñëw vacances quoi. léegi nag bi ma ñëwee fii si laa takk sama ja bi euh, ma desee waaw takk sama soxna mu nekk koo xam ni tamit boo ma poussé. ci li may def nii. moo motivé parce que dafa am loo xam ni yàlla du ko si dimbali macha allah yàlla bu ko yàlla yàlla bu ko cat doof bon ma gis ni affaire bi comme maîtriser na ko bon pourquoi pas bon comme daf ma koy defal muy neex lool man tamit ma ni daa ko proposé jaamu yàlla yi. ok waaw léegi nag loolu moo ma dugal ci jaayum lekk yi. ça veut dire que merci. <laughs> macha allah buñ ko jot quoi du la <laughs> non non munul mer parce que tamit xam nga ni ku nekk <laughs> say jaar-jaar ko ça veut dire que sa awa munul moom yow ak mooy non moom bokkul xam nga kooku nekk fii quoi xam nga fi nekkul moom moom la mu mën non si mën na plat yi muy togg moom moom moom plat wu dëkk boobu mën na ko. ay plat italien lay togg quoi. voilà plat wu italien Sénégal trop ñëw mën yooyu noonu. voilà léegi moom non bu ñëwee Sénégal daf may toggal daf may fàttali plat italien yi quoi. <laughs> mbaa di ñëw yaa ngi doon jëlee njël bi. non non dañu koy non lay def sax noonu lay def sax. day <laughs> sama la ceebu jën. non da koy mën da koy mën mais nag ceebu jën yi bokkul quoi. waaw ah. ceebu jën bees jën yu bees tax ak jën yu yu ñuy denc frigo moom mënut a bokk quoi. ok noonu la demee nga dund international nga ñëw am fi vécu tu vois ci mhm. passage xam nga di dund ak sénégalais yi mhm. léegi peut-être c'est le moment c'est le moment quoi ñu xam Mamar lu nga dund ci àddunaam à l'international wala Sénégal loo xam ne métti na ko moom fen bi de si yow gëmmal <laughs> gëmmal gëmmal parce que dafa am lu ma soxla oui ma bëgg nga gëmm nga rappelé wu lan nga dund loo xamante ni metti na la ba foo toog boo ko xalaatee da nga koy métti lan la il faut nga xalaat quoi man bëgguma nga ñëw rek tontu ma. xalaatal di la sa loo xam ne dund nga ko métti na la ba fépp foo toog boo ko xalaatee tes larmes vont couler lan la. waaw bon c'est peu compliqué parce que nu ñu dund lu métti dafa bari. ban moom la ci gën a touché. na quoi parce que euh, immigration nekkul lu yomb quoi nekkul lu yomb. mais euh, li ci gën a metti gën a metti bon dina nekk affaire bu doy waar ah. il faut nga partager parce que on veut que dañ ne fii la lépp di leeree parce que y a des jeunes yoo xamante ni ñu dund lu metti mais dañuy xàddi. Mhm. mais peut-être sa histoire dina leen motiver. oui oui bon ñëw bi fii am na mais yow tamit am na yu fa metti quoi. mais euh, comme li may wax rek. bon nekk si dëkk jàmbur considéré wuñ la loolu dara gënu ko metti ci këru àdduna parce que yow mënoo fexe nekk black ci biir tubaab yi bañ naw loolu day nekk affaire bu doy waar quoi c'est que am loo xam boo ko dund rek mënoo ko expliquer nit mais tubaab sama waay ëpp na kon metti woon na bu baax parce que mënoo fexe ba ñu naw loola pour yow pour ñoom ci un bon poubelle nga quoi daf ci bari quoi daf ci bari du mën a ñëpp nag quoi tubaab yëpp meluñu noon mais tubaab yi ci ëpp no non mënuñu la considérer bon di nga lekk di nga naan mais dafa am loo xam ni diggante nit nit lay doon parce que tey bu la joxul cër rek sa waay ça veut dire que vous n'êtes pas indépendant là-bas. doo indépendant nit ki bu la joxul cër sa day metti nga tegee benn ya benn benn benn këyitu soleil sam waa ji kooku maara dem si non moo tax ma gëm ni man sama place du foofu quoi ah, waaw foo ma dellu fa ma jógee parce que Olof Ndiaye daf ne booy dem ba xamatoo foo jëm dellu non si si y yoo xamante ne nii mënuñu gëm loolu maanaam peut-être rëy laa koy woowee parce que mhm. ñu ngi en limite amuñ dara mais rusuñoo dellu ci ñoo lan nga leen wax non dama ci am ay cas am naa ci ay copains yoo xam ni ba léegi ñu ñu maag ñoom ñoo ñëwandoo woon ñoo demandoo woon mais mënuñoo ñibbisi mais tamit euh, li mu metti foofu tamit dafay méttiwaat day méttiwaat fii parce que xam nga tey jii nga ñëw man courage bi maam xëy na am na ñu ma dimbali am na ñu ma dimbali quoi surtout sama soxna si ñaawul xam nga teg ma loxo bo lu mu bëgg mu nekk ci xam nga loolu dimbal na am na ñoo xam ne amuñu ko mais tey ji au retour nga ñëw bon fekkoo fi loolu sama waay day metti ñëw fekk réaliser woo dara gars yi dañ la koy jàppee comme comme ku ku ku ku koo xam ni bon. te ku tekkiwul dara quoi voilà mais du question ñàkk jom quoi mais nit dafa am loo xam yàlla moo koy bind si sa destin fi ngay jaar li nga war a am mais dañ koy wax mais duñ ko jëfee léegi nag boo ñëwee fii accueil boobu amul ci yow non da ngay obligé nga ni non je m'en fiche naa toog fële ba keroog yàlla ñëw. léegi lan ngeen di jox comme conseil parce que il est maanaam c'est le moment pour que ñoom ñu ñëw ñu xam ne maanaam il faut nit di nangu des fois di fàtte. maanaam boo fàtte rek ci vas dire que noo je m'en fous je vais aller. ak les peu importe li nit ñi di wax lii sama vie la sama life la man maa xam li ma dund kon damay dem. damay dem mais su ma demee dina leen wan que ni du ñàkk jom moo taxoon amuma mhm. mais peut-être ci sama wërsëg moo fa nekkul. Mhm. ah bon foofu moom xam nga décision lay laaj. parce que nit ku nekk nit nga quoi nit ku nekk yow yaa xam sa xel bopp quoi. mais man li may conseil comme man un jeune comme nii mhm. man je préfère man nit ku ne nga dund dund Baye Fall parce que Baye Fall mooy lan ñun li ñu xalaat ci Baye Fall li ñu xam ci Baye Fall mooy oyof waaw ak lu mu metti metti metti metti yow gëmal ni jaamu yàlla nga lu mu tar tar xamal ni jaamu yàlla nga te am na ñoo tane te saa su ne rek boo gëstoo sa ginnaaw di ngay xam ne yow mii am na ñoo tane quoi am na ñoo tane lu mu metti métti man gëmal ni am na ñoo daal. kon daal lan nga leen jox comme conseil. am na ñoo tane mais. <laughs> ok ñu lay demee saa jeune toog fii mën na nekk parce que jeune bu nekk boo gëmee sa bopp ne li may def nii mën naa cee tekki sans l'aide de personne. gëm naa ni tu vas le faire parce que li may wax chaque jour yàlla dafa bëgg xam ne day def te du xaar kenn yàlla dafa bëgg xam ne day def maanaam sans dire que dañ may jàppale pour ma réussir toi même tu peux réussir sur tes objectifs sans l'aide de personne kon frère vas-y na calcule rien fonce parce que y des gens yi nga xam ne yaa ngi toog leen xalaat naan su ma demee man lañ ko gisee lii wala lii ñoo ñu ngi dund seen dund mhm. ñoo ñu ngi live seen live te sóoraale wuñ la kon yow bu leen sóoraale c'est que yow kese mën nga jàppale sa bopp ba réussir nest ok kon lan la loolu laa leen jox comme conseil pour que ngeen xam ne àdduna dara yàggul hmm. il suffit nga gëm sa boppu gëm say rêve barki Serigne Touba yàlla daf lay jaar non lu leer lu leer yàlla maanaam yàlla dafa bëgg ko gëm boppam avant tout oui il faut il faut il faut que gëm sa boppu moo tax nga toogaat fii tey non mais si si mais bien sûr bien parce que xam nga loolu lu koy waral mooy gëm-gëm lay doon parce que àdduna tamit euh, ñun li ñu suñu bàyyi jàngal ñun euh, day bokk ci nit ku nekk rek da ngay gëm sa bopp parce que gëm sa bopp ci la lépp di xaj parce que àdduna bi xëyul tey tey rek sotti àdduna xëyul tey tey rek sotti parce que am na ñoo xam ne xëy na comme ni ma ko waxee woon yaa leen tane fopp yaa ngi nii say yaa ngi dox am nga cër am nga lépp feebaroo am nga loolu rek bénéfice la loolu rek bénéfice la am na ñoo xam ne amuñu loolu mais damay wax ni saa su ne rek yow amal jom ji toll nii tekki nag xëy na gars yi dañu dul comprendre léeg-léeg baatu tekki quoi waaw parce que Sénégal xamuñu lool ñoom pour ñoom bon am na yor na ay immeuble am non parce que est-ce que nan la ko amee moom est-ce que xalaat na nan lañ waa nan la waa ji amee lan la def ba am lool waaw mais tekki pour man nit ku ànd ak conscient nekk nit di xalaat di wax lu baax bu heure julli jotee mu dugg ci jàkka ji julli ñëwaat toog fu am lu baax mu dem fa man pour man lool mooy tekki fonk say waajur liggéey jaamu yàlla man loolu laa gëm quoi. xam nga xam nga dafa am benn proverbe bu ne. Mhm. un vie sans souffrance n'a pas d'histoire. right mu ne un vie. dëgg la sans histoire. waaw maanaam sans mais li mu bëgg a wax mooy que ni. Mhm. dund boo xam ne amul jaar-jaar. dëgg la neexul. neexul <laughs> c'est vrai. mu ne acceptez-vous de souffrir. dëgg la mais n'abandonnez jamais. dëgg la non lu leer. maanaam nañuy di souffrir. souffrir mais sa bàyyi. non mais mais mais doguma la sax. mais suñu borom foofu daf ñoo jàngal quoi. parce que lim ñu jàngal tey jii boo xoolee ci ñi ñu mag ñu baax ñu fi jaar ñëpp nga xool yonent bi sallallahu alayhi wa Muhammad ay jaar jaaram dara mënut a yomb. dara mënut a yomb. waaw ku tedd ki xaadim rasul tey fu ne jaar na fa dañ na lu ne tey jii nag loolu rek war na ci jeune bu ne di ci xool di ci xool xam nga di doxee noonu parce que dara yombul ci àdduna bu yombee sax war nga tiit sa bopp bu yombee sax war ngaa sa bopp ñun dañoo war a gëm ni baax na ba pare te day baax. day baax noonu la ñu na ku nekk gëm ne dina baax nga nekk ci yoon bi tegu ci. te xam ne yàlla gëmul nelawul chaque jour mu ngi ñuy xool borom bët bu rëy bi dañ koy ñaan chaque jour rek. képp koo xam ne bëgg nga benn affaire mu defal la ko mais nañ nekk sa dur liy gën ci yow. tu vois parce que dañ ne ñaan bu nangu moo sonal borom. léegi Yamar pourquoi le soir de 18 Safar turu resto bi lan moo ko waaw parce que il faut ci <laughs> waaw resto bi 18 bi moom euh, li ko indi euh, bëri na quoi parce que ñun dañuy taalibe Serigne ba jokk ci maam Cheikh euh, jokk ci waa kër. maam Thierno Birahim daamal daaru waaw daamal daaru suñu bàyyi nekkoon nag taalibe bu bu bu ràññee ko woon si yoon bi xëy na sax ñun duñ dab duñ ko dab waaye nag dinañ jéem kéem te laay kàttan li ñu mën quoi bon lu ñuy murit tamit waaw te ku dégg 18 safar xam ni bernde ko tax a jóg te bernde nag mooy lan lekk gu lekk. lekk gu sel lekk gu waaw comme yaay faal bi nag moom dafa mën lekk gu sell. bon sama xel nekk ci loolu moo tax ma indi 18 safar. moo tax nga ni 18 safar waaw. da ngaa bëgg ci murid daal mel ni parce que murid dafa xër ku ne xam. waaw loolu la waaw loolu rek la. Ah? waaw ah man nag murid laa de. non ku nekk xam na fa nga far man fii laa far je vous dis man gisul sabar laa far képp ko may seet bul boo ma gisul xamal ne naa ngi fii gisul sabar toog sama lépp fi lay nekk fi lay fi laa jëlee café xam nga lekk gu gi comme ni ngeen koy gisee ci écran bi noonu lay demee fii lépp fi am ko ñëw leen képp koo xam ne ànd nga ak sa des fois tu vois mm. tu peux venir place yaa ngi fi waaw amul limité ñëwal tu vois day neex lépp ay bar quoi lan ak lan mooy profession bi waaw tool nii bon am nañ fast food dañuy dem volaay ginaar ak lépp dañ koy bëgg a kii dañ koy dóor même lekk fu toll ni lekk yu tooy yeeg yu baax yi mag ñi daan def bon ay dëxin ak mbaxalu saalum ak yooyu dañ koy def quoi mbaxalu saalum bi effet la de voilà que parce que lu tax ñun dañu bàyyi suñu yoon quoi man gëwma yi léeg yi gars yi di gëm non dañu war a kii mais lii démb dañ ko war a indiwaat parce que nit ku nekk li yàlla def ci yow loolu nga am lii yàlla def si réew balaa yi ñu am ñun yooyu lañ am buñ ko buñ ko buñ ko favoriser dañu am lu bari waaw dañuy am lu bari parce que wér dëgg dëgg dëgg balaa ñu ko wax ñu jox la palaatu cere sama waay yi nga dóor ci ba gàtt ah ñu def la yeel yi sa waay nga supp dégg am naan ci ñeex mi ah loolu mooy wéral nit bañ ko bàyyee lañ feebar bañ ko bàyyee lañ feebar moo tax waaw loolu laa bëgg dekkalaat fu mu toll nii ba biir ville sax sa waaye dañ ko fay am muy nekk ñuy naan ci ñeex mi di lekk ci cere ji. di sama waaw di fépp kay fépp. waaw <laughs> ah, baax kon ñu ngi lay ñaanal xam nga. ñu dem ba ñuy dégg réseau yu mag yi parce que comme li may wax rek. Ah, am nga passage te peut-être jëm ak fula moo tax nga taxawal lii mais réseau bi kenn la judd. waaw bon kii moom bi mu juddoo léegi matagul sax 6 mois. waaw 18 safar bi moom matogul 6 mois resto bi quoi bon au début. c'était juste benn projet bu ndaw la woon rek ma bëggoon installé parce que comme man damay def élevage ma ne naa produire jaay par def ay kees affaire yooyu mais nag bi ñuy essayé loolu antuwul peut-être espace yi ñuy bëgg duñ ko mën a am bon ma installé ne garaaw naa ko gérer ci kër gi def ko benn petit restaurant indiwaat démb bon xool ba xam quoi yàlla baax na. xam naa ni gratuite man ticket gratuite laay am dama ñëw rek am amul benn bi nga ko bi nga ko taxawalee 6 mois est yaa ngi ciy gis avancement parce que nit ki moom dañ ne lépp lu muy yëngu rek dañuy séntu avancement dañuy séntu loo xam ne day jëm ci kanam. Mm-hmm. waaw sant yàlla nag waaw sant yàlla parce que euh, ñun moom li may wax rek souvent dañuy yàlla la ñuy yaakaar da ngay jëm yàlla moo ci des. yàlla validé waaw yàlla moo ci des. mais wax dëgg yàlla bi ñu ba te amuñ ci benn rëccu rëccu ay tànki kanam rek lañ ciy gis. sant yàlla bu baax quoi. kon ça veut dire que lu mën a nekk la lu mën a nekk la. mën a nekk la dama koy delloowaat jeunes yi xam ni ñun amuñu fenn fu dul Sénégal. amuñu fenn fu ñu Sénégal li ngay rey sa bopp ci àll bi boo ko reyee fii sa bopp mën nga ciy génne. parce que yàlla mooy yàllay fépp. yàllay fépp mooy yàllay fépp. benn yàlla moo nekk fépp. waaw sant yàlla quoi. li l'émission tire à fin comme ni ma koy waxee saa su ne mais bëgg a xam gaynde yi nga xam ne ñoom ñoo nekk tey Qatar di mhm. jongante ku ne xam ne huitième de finale nekkul ay fo te Angleterre moom mooy loolu la nga leen di conseil ak la nga leen di wax waaw mais gaynde yi comme d'habitude rek ñun xam affaire gëm sa bopp la quoi lañ woote waaw affaire gëm sa bopp la ñuy woote nit ki moom boo gëmee sa bopp li may wax rek chaque jour boo gëmee sa bopp yàlla mooy ñëw yàlla mooy validé comme ni ko waxee léegi gëm sa bopp il faut nga gëm sa bopp àdduna gëmal sa bopp am fulaak fayda bañ ak complexé bañ a complexé surtout jeunes yi dama leen wax neen bu leen complexé parce que tubaab yi li ñu am nii dañoo complexé wul rek moo leen ko may mais ëppalewul lu dara bu dee richesse yàlla wàccu naa ñun bu dee air pur ñun ñoo leen ko ëppale bu dee géej gi lépp bu dee pétrole ak essence lépp am nañ ko kon li ci des mooy ñun ñoo war a valider ñun ñoo war a gëm suñu bopp motivé liggéey liggéey rek ay dox liggéey mooy réew mooy doxal réew leneen doxalul réew lu dul liggéey. mais mais gëm nga ne coupe bi mën na fi ñëw. gëm naa ko kay bañ a gëm eh man gëwuma ay gars yi naan ay kërëb kërëb de man dama xam ni góor-góor la rek terrain bi xoolal onze onze la ñun ñëpp a yem te am na nu muy demee li ñu lekk ci cere ñun bokk ak ñoom ñun ñoo leen gën a dëgër fop billaay walaay bis bu ko gëmee bañ a complexé lu raw coupe bi bi day ñëw cinq fois pour muy leer scoop bi day ñëw cinq fois amul complexé bu kenn complexé noonu lay demee saa su ne kon bu kenn complexé ñu bëggoon xam maanaam euh, avant avant ñuy tàggatoo ku bëgg ku bëgg ku bëgg ñëw di Safar nan ngay def ak numéro téléphone bi wala day def te de na jàpp naa day defaale livraison domicile waaw incha allah boo bëggee boo ñu ñu fekk la ba fa nga nekk waaw boo sa Safar moom boo boo wootee rek 18 Safar numéro 8 77 la 868 68 54 868 68 54 waaw moom boo wootee ak loo bëgg mën nañ la ko livrer ñu amuñu problème yooyu quoi parce que liggéey la boo xam ni comme niñ ko waxee rek daa war a wuyu turam loolu am parce que bernde moo ko tax a jug te bernde loolu la sëñ bi woote bernde leen jaamu yàlla yi ngeen jox leen lu baax ci ñoom loolu looloo tax a jug nag 18 safar moom comme li may suñ kër ñu naan ma ay ma léegi surma ma naan ñu naan ma ay lu neex du doy ma naan leen Touba lépp ay neex te day doy bu leen surma laa leen wax kon loolu lay demee saa su ne dama bëgg nga wax ñu kon boog lan ngay tàggatoo ak lan ngay lancer jeunes yi comme message comme ça ñu tàggatoo waaw gannaaw yàlla sant yàlla rek parce que tamit euh, yàlla moom yàlla suñu borom ñëpp la fi nekkal te nit ku nekk tamit euh, am na lu yàlla may waaw bul am complexe comme d'habitude damay ñëwaat rek ne gars yi bu ñu am complexe dañu gëm suñu bopp maanaam du ragal ragal yab yàlla lay nuru du ragal du ragal bul ne non fii ba ma fi jaaree su ma solee man parce que dal na ma quoi liggéey bi nii maa ngi ciy liggéey bon léeg-léeg nit ñëw ne la waaye waay yow euh, lii liggéey pël fuuta la wala affaire yooyu jàppal bàyyi mais jom ngay am parce que liggéey du ay pël fuuta ay sénégalais nangam nangam liggéey liggéey la liggéey liggéey la liggéey moo gën dem defi leneen boo doon génn fii sawaay ñu jox la sax ay nettoyage demal dóor ko parce que loolu mooy àdduna bul xeeb dara jeunes yi Sénégal il fallait que ñu motivé wu bañ a xeeb dara parce que boo am loo xam boo koy xeeb mooy moo lay lor boo koy xeeb moo lay lor adduna bi dara xëy sotti il faut nga def jaar-jaar comme d'habitude ni nga ko waxee gëm sa bopp gëm sa bopp yàlla defal la jàmm waaw gannaaw yàlla nag sant yàlla sant mu rasul xam nga sant ñëpp yéen ñoom amuñu seen pay salaam Salam Vision moom ay jeunes lañu ñu yu yu motivé wu quoi yu gëm seen bopp tamit mais dama leen di ñaanal nag bon mu dem ba nekk ay télé yi télé dégg maam nekk international dem fépp waaw yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def da ngeen gëm seen bopp yàlla bëri na sutura quoi. nan lay daa demee saa su ne mbégte contentement la ñuy am yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp ci Salam Vision bu leen di ñaanal jàmm comme toujours di wax tamit chaque jour nii lay demee message bi may lancer seen mooy que ni foo faut ngeen gëm seen bopp balaa kenn di leen gëm bu leen xaar kenn si dara li ngeen war a def leen ko def chaque jour. même bu fekkee yoon bi day am ay xeer jël leen xeer yooyu noonu ngeen dajale ko parce que ëllëg xeer yooyu pour man moo leen di tabaxal seen i kon gëm leen loolu noonu. lépp looy def gëm ko bul ci xaar kenn fais ce que tu defal maanaam bu fekkee day taw day naaj yow gëmal ne man damay réussir sans l'aide de personne toog fi tekki fi lu mën a nekk la gëmal say projet gëm yàlla jaamu yàlla di ko ñaan su boobaa rek mën na baax kon xëy c'est scotché sur Salam Vision ñi lay demee saa su ne beneen yoon ñi lay demee dañuy xooliwaat keneen ñu waxtaan àndandoo dundandoo avec DJ Big xale bi yaayam yaakaar l'homme qui n'a pas peur devant des cœurs li may di wax chaque jour rek le seul et l'unique qui I am the future of kontaan nañ si ñu lay demee saa su ñu ngi ñaan jàmm di ñaan jàmm jooju sax ci mim réew jàmm jooju wala ngaan ba dugg ci biir kër gi ndeyam jàmm ci la lépp xel di ñaanal suñu lion yi nga xamante ni ñoo nekk Qatar jàmm jooju fekk leen fa bañ indi ñu coupe du monde bi parce que lu mën a nekk la kon restez scotchés jaa ngeen jëf sabar Bienvenue sur Salam Vision.